Ya di sam susoda, Palu ya jengada umgalam galam di soda Nongilai siare Kita ba tey yéen ngi jàkkaaroog seen site seen xibaar point com ñi ngi jàkkaaroog El Lam moom itam mu nekk sen TV nekk mag si yoon wi ginnaaw bu ñu la nuyoo si kilifa gi yan seede nga ñu mën def si Cheikh Mouhamadou Lamine Bara eh, jërë ngeen jëf ñuy sant ala di Juli ci rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di sant Serigne tu Cheikhul Khadim delluwaat di sant yàlla nag ci li mënu ma ñu fekkewaat bésu tey jii ndax naga nii daaw ñu ngi fi woon yàlla bàyyi ñu fi ba naga nii ren fekk ñu fi ñu koy ñaan it nii mënu ko defalee ren yàlla na nu ko di defalee naga nii déwénti kenn ci ñun bañu manqué ci barke borom bés bi di Cheikh Mahamad Fadal ibnu Cheikhul Khadim Alaaji Baara nag euh, waxtaane ko mooy waxtaane sëñ Fallou rek ndax ñoom ñaar euh, kenn lañu ndax euh, ni ma koy waxee toujours rek dafa amuloon sago ci sëñ Fallou tegoon sëñ Fallou foo xam ne benn doomu aadama tegu ko fa euh, loo bëggaan ci Alaaji Baara boo tuddee sëñ Fallou rek am ko euh, kon bésam bii nga xam ne nii tey jii dafa lëkkaloo ak bésu bésu Cheikh Mahamad Fadel bi loolu daf lay firndeel rek cofeel gi nga xam ne nii ak mbëggeel gi nga xam ne ak toll gi nga xam ne nii woon na ko ci Cheikh Mahamad Fadel ibnu Cheikh Khadim waaye euh, ñu ñaan yàlla rek yàlla fayal ñu ko te yokk leeram xam naa ne jaanam wàcc na ndax euh, yàggul ci jal bi de waaye def na fi loo xam ne nii nit def na toog na cib jal lu ëpp fanweer wala ñeent fukki at te deful xaaju li alaaji baara def tey ku gis mbedd yi niñ ko xottee ku gis jàkk yeeg jumaa yi ni ñu bëree fii nga ñëw ci jumaa ji mu daan wax naan dama bëgg jumaa ji mel ni jumaa mi a war tey boo fi jéegee nga xam ne yéeneem yëpp sunu borom tabaraka wa taala jàppandil na ko ko ci mbaaxu Serigne Touba Cheikhul Khadim lolu moy dox ba legui ndax gis nga yoonu mourid continuité la gis nga lamu mu bëggoon rakkam ju bax ji si di Serigne sidir Mokhtar dafa ñëw dal di ci taxaw taxaw ci taxaway bu mot sëkk taxaway bu rafet yàlla defal ko ci itam ndam ndax legui ken waxatul mourid tidiane Tijaan khadir ak Laayeen ki nga xam moko fi wutu itam di sëñ muntaha fa ay magam tegon tànkam rek momit fa la ko tek waaye nak loolu la Serigne Touba bëggoon ndax sëriñ Touba ba muy dem ci géej gi damalul murit bi damalul tijaan bi damalul xaadir bi umma islamique bi doomu aadama yi gis nga euh, euh, sëñ bi ku ko yëg ak ku ko yëgul lépp loo xam ne nit am na ko doomu aadama am na ko muy tawféex sëriñ Touba tax ndax ba muy dem ci géej gi ñëpp la demaloon ba mu ñibbisee itam ku ko yëg ak ku ko yëgul yaa ngi xéewlu ci li nga xam ne nii moom la ko sunu borom defal. kon euh, di di di di sant di ñaanal bu baax nag xalifa bi nga xam ne tey jii moo wuutu Alaaji Baara wuuf njaboot gi ay rakkam yëpp nag déggal ko àndandoo nekk ci gannaawam déggal ko lool itam ñuy continuer œuvre bi nga xam mi seen waajur tàmbali woon na ko kon sëñ Moustapha ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla guddal fanam te wéral ko euh, nii mu uufe njaboot gi itam uuf ko taalibe yi ah yaakaar naa ne tey ji bu alaaji baara dellu siwaatoon moom du soppi aw toogin ya sam su sooda fallu yaag su ngaada um galam bi sooda noo ngi lay siyaare